Meccan dona Mbattan ku sew la Ibra Caan mu sëñ ma sama Mbàkke sëñ ma sama Mbàkke moo ko yar nee na ma sëñ ma Sàmba moo dikk ci kër ga nettali lu li leen Sëriñ Tuubaa wax sëñ Ibra Caan ma ko wax mais bi suñu waajee bay bëgg a dem nee na xëy benn bis woolu sëñ ma sama Mbàkke sëñ Moodu ma sama Mbàkke sëñ moo roqoye busa sëñ Moodu ma Samba Jóob mais ba ñu dikkee sëriñ bi ne leen del leen ci yéen kët ku ci nekk la nga yor ci ay xasaayit nga yenu ko yët ma ma gis ko waaye nag bu ci kenn indi xas dëggoo moomul da ngeen def maandu gu mat sëpp ndax yàlla maandu la bëgg ba ñu demee keneen bi da leen a waxal ne bu ci kenn ànd ak kenn ku ci ne la nga la nga moom na nga ko yenu sopp yët ma bu ci kenn ànd ak kenn ba ñu demee sëñ bi dem jëli yeen yeen ci romb jaan ñu wër njéelu yu ndaw yu bari woon na ci kër yi lool teg ci wetu ndey joor mi ku dikk jaare ko ci wetu càmmoñ mu teg romb jaan nga def ci say téere yenn ko ci nga ñoom ñeent ñu dal ku ci ne buuf buuf tiim say téere sëriñ bi ne dama bëgg a waxtaan ak yéen de ci xasaayid yi ndax dangay bëgg am fu ñu bëgg a dugg xalaat te danga ci am am biir nag dafa danaa fa yàgg dafa tamit ngi tàmbatoo daal di wax ni bi alayhi salaam day dafa ñëw fii ne ma suñu borom ma yónni ci yow nee na def ak dindi fal ak folli nekkatul sa loxo nañ ko dénk xasaay yi te ñoo ne nu diyaale dama laa soxla fal ak folli def ak dindi nan ko nan ko def jox xasaay di ñu yor ko gannaaw daal di wax ne xasaay yi nag ma bëgg cee waxtaan ak yéen xame leen la muy mujj yéen ëllëg xasaay yi ngeen mokkal ci seen dund di ko xëy di jàng ak xasaay yi ngeen denc di ko xëy di ko war maal maanaam def seen gaal ne defat ko ni da nga xam ne seenu jot lu àgg ci jàng ko waaye li ngeen mokkalit bis mu ne yéen a ngi koy jàng nee na soo xam ne seenu roo jeex na ci àdduna ba tàggu yéen mu des fi aw yàpp ci yéen ñu yóbbu leen fañ leen di defare maanaam sang mais mboolem xasaayid yi ngeen dencan ak yi ngeen mokkalan di ko jàng ngir yàlla ak sama jëmm daañu doxale fa sa bàmmeel ba di la fa nekk ñoom ñëpp te dañu mel ne ñu bokk ndey ak baay te soppante noonu la ñuy mel yàkkamti nga ak si lool wala say bokk dencee foofee ca pax moomee ba dëdd la ngay mujj a dégg ci say ci sam nopp na lu dafa fii na ña la roban di dellu tepp tepp ci dàll yi ci tësee nga ngay mujj a dégg soo xeen sam nopp déggatu ko nag ñoom ñu ne yoxoos ñoom xasaat yépp tàbbi ànd ak yow lépp loo xam moom nga xame man ak li nga xamem te xamuloo ko ak li ñu fay indi te xamoo ko ndax musuloo ko gis moom la ñu indi di la ko tere bisub dekki ba bisub dekki boobee suñu dekkee ba ñëpp wuti suñu borom ca pàkkam bu tedd ba nga mel ñu ne ñoo kenn jiitu fi sa kanam nga topp ci ñoom bu ngeen dee fa seen borom ñoom dañoo leen di laye yéen daal da ngeen def cal ñu laye nit ba mu àgg ay lu ngeen di dégg addaxol jannata maa jantu daaxilan loolu ngeen ci mujj dégg loolu daal laa xam ci lu mu dénkaane ci lu muy bëgg a dem waaw am na yu bare yoo xam ne waaye loolu daal moo ci lu am solo la ci ci nit ñi xam ko nga mën a farlu ci xasaayit xam nga nii kat xasaayit yi li nga xam ne fayaguma fay naa ko nag moo nekk waaye li nga fayagul mën ngaa ak seeni par mën ngaa gone bi ñu bind daal te fayoo bu ma ko duma ko jël lu lu ma fay nag jël ma nekk ci laaj bi ba fees way dërëm waaw ko bind way wane boo nee ma fay dërëm boo jàngee ba mokkal way wane ma fay dërëm ngaa ñi nga xam ne borom ko wax na ko ci xasaay di lu ma taraañee la waaw loolu it am na ci lenn lu ma fekkee mu jóge ci làmmiñam waaye mbirum xasee di moom loolu rek laa ci fekke ci lu mu jóge ci làmmiñam sëriñ bi daal xëy na di jàngalu boo buuna faal moo fi nekk di jàng ak sëñ Mat Lamin Jóob ak sëñ ñi ko Jóob Nasar buuna ak sëñ Mat Lamin Jóob ñoom dañuy toog ca ndeyjooru sëriñ bi képp ku ñu ci woo di la jàngalu sëñ Ruju Masar day laxasaay di bàggi dem ak a dikk ci kanam sëriñ moom noonu la jàng waa këram sëñ Masa Mbàkke ci jàkka ji dañuy jëkk a jànge bu sëriñ bi jullee gee ba noppi nag ñu dem ci pinc ma ak sëñ Masamba di jàng waxtu rek sëñ Masamba yeew ñu bokk dem ci kër gi noonu daal lañ ko daan jàng am na benn bés boo na di jàng fekk sëñ Masamba mi ngi ci càmmoñu sëriñ bi ndax day faral doxante moom këyit moo tax mu di ko fiir càmmoñ ndax ndajoo la ko jox sëñ Masamba mu ngi toog boobu ay maga gi fi ñu bari ci magi sëñ Tuubaa sëñ Masamba am na ko jóge këram ci gone yi dëkk ca gannaaw daal di laal tànk yi bés ko sëñ Masamba daal di wàññeeku xam ne kenn mu daal di sóonu benn loxo bi jàpp ci wóom bi góor si di ko dee waaye boobu boo naa ngi jàng sëñ bi ci sëñ ma sàmbay déyante ngóor si sëñ bi daal di ne boona nag mu ne ko mu ne tooti ndax sëñ sëñ Tuubaa moom boo xayee mi ngi jàng kenn du nuyoo buñ la jàng kenn du nuyoo quoi si da nga yàgg suuf du wax it sëñ bi daal di wàññeeku daal ne rëkk baaram ci wumu sëñ ma sàmb ma sàmb mu ne bërik mu ne ko bàyyi ñu jàng jàng yi ngeen dafa bërxali wax koo xayee nga tuloo ko malaaka yi daañu la bërxal safaanu bàjjal da ngeen ko wattu lora ngi ci juróoykat sëñ bi daal ne boon a jàngal sëñ ma sàmm ne wal yeesu billahi rangooñ dikk sëñ bi ne boon a jàngal wala daal di ubbi téere bi di jàng mu ngi jàng xasida goo xaye malak la tudd mu amee taarixi at yi sëñ bi def ko ci mii mu nag siin yi siin an siin yooyu xanaa dañ koy xongal boobu boobu xasida la boon a di jàng dafa am nag gu fukki way ak gu juróom-ñetti way waaye tawmaan lañu sëñ Tuubaa tudde woon dañuy tàggoo foo fekk mu ñooy ànd ci ci téere sëñ bi tudde leen tawmaan tawmaan moo di cheikh kii cheikh da nga xamee ne boo naa ngi jàng bàggale sëriñ Tuubaa daal di wax ci limu nim ne bu kenn dem de dama leen a bëgg a dénk mbirum xasaay bi ndax ngeen wattandiku baax a baax ndax loolu dafa ne ci biir yoo xam ne xamu leen ko yéen ma bëgg leen ngeen wattandiku daal di wax ne an aatayni qasidatayni mutaalaxaani bi saaxil xarsi wal kursiyu bilen fi saali abadan wallahu alla ma naqulu wakilu an aatayni qasidatayni ibtadru malu lahla illa ifsuhuma wallahu alla ma naqulu wakilu daal di wax ñaari maliktu ñu day fa ma ko fa waye fa aras sunu borom a ko yëkkati aj ko fee mu jungaan fa ba yow ma xayam waram mboolem malaaka yi wattu aras buñ dikkan di séddoo fekk suuf si genn wàll gi du ñam te ñu ca bar day dana leen dox ndigal ndax malaaka yooye nag boo xayam ñu ngi jàng sama xasaay ci suuf si ci àdduna dañuy jóge foofee ne cëpp di ko déglu boo fa nekkee nag bañ a déglu nu ñoom ngay dénte mbaa ngay wax waxe adduna day mer ba sadd la buñ la saqee ana fañ lay sànni ak suwal jannat ak suwal jannat nag mooy safaanam ajjana ku nekk xam na ko nag mais loolu laa indi bañ ci xasaay ji xasaay ji ndax buñ ma saa di gàmmu ci njaareem sëñ am si tuloo moo yor barsan jay bi ci pinc mi attari laahu ma xabarul karim bi arfin sasin salaatin wa taslim fukki yoon ak yàlla koy wax lu mu ci wax mbooloo mu aw attari laahu ma xabra wal karim fi arifin sasi min salaatun wa taslim ñëpp awoonooñu mu ma tee fukk ak yaar mu ne allahuma salli wa salli wa barik ali ñëpp ne allahuma salli wa salli wa barik ali ba ma fukk ak yaar ñuy jàng gis bu daal di jóg waa kër sëñ Masamba wax fukki woy ak yaar ñu jàng mu xaddimaat wax fukki woy ak yaar ñu jàng mooy wax fukki woy ak yaar mu soog a dellu ca ca barsam falamaa balaxa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nangam ak yamu toll rek lu mu ca mës a def rek dana ko wax barsam wax na ko moo ne sëñ bi daan gàmmoo sëyir feeti noonu daan gàmmoo ca mbakkaj wax loolee nag sëñ Tuubaa yi da daan da daan def boo xamee ne jant sona ba ñu tàmbali gàmm gi sëñ Masamba lay woo mu ne ko na ngay war jàngkat yi ci pénc mi ndax booba jàngi taabal amul jàngi xaalis it amul waaw kenn du joxe xaalis dégg nga da nga gis kenn ko dangi ñu fee di jàng wala ñaar ñu ànd sëñ Masamba nag waa këram dañ daan def ñaari kay ñuy ànd di ñu weesoonte noonu lañ daan jàng ñu ñu weesoonte ñu dem ak a dikk du bambante sëñ bi day wax sëñ Masamba ne ko jàng yoo déglu boo xaane ko kooke dafa naqari baat na bàyyi ndax malaaka yi koy déglu dañu nungul baat bu naqari lu neex rek koo xaane dafa tooy di yàq arab yi na bàyyi ndax ñii ma ko bindee képp koo xaane wàññi ko mbaa nga mbaa mbaa nga yokk ko da nga am bakkaar bu rëy ndax dangaa yokk sama wax te alxuraan loo ci yokk am nga bakkaar loo ci wàññi am nga bakkaar te sama xasay ak alxuraan a ñoom ci googu wet bu ci kenn yokk benn benn baat bu ci bu ma bindut bu ci kenn wàññi benn baat bu ma bind ndax jëmmi doomu aadama loo ci yokk mu ñaaw loo ci wàññi mu ñaaw xasayat noonu la mel ndax jëmmi doomu aadama yi yooyu dox lañu bu leen ci yokk dara rek bu leen ci wàññi dara bu leen baamtu wenn wayit ndax xasaayat yi daa mel ne peri kurus per bu daanu benn ak yàkkam sànq si daanu ci kawam rek peri kurus ñaaru daanu mu ko benn daanu kon nag xasaayat bu leen ko baamtu waaye ñu ngeen wax nañu teg wàcce des ba mu jeex rek koo xam ne kii nag dafa naqari baat na ngeen ko tere su bayut na ngeen ko gàcce gàccel gàcce gàccel nag ci wolof mooy dóor waaw waaw daal ko naqari baat daal du ko du ko déedéet sëñ Tuubaa nangu ko nangu ko déedéet mais bu ko mokkale nariyam rek bu ko kenn dégg nariyam rek na wax ca xolam rek koy dana amab yoon ne ko neex baat dana am yoon daanaka koo xam ne dana yàq araf it na bàyyi rek mooy bu ta bàyyi gàcce gàcce rek ci am waaw nangu ko daal lii lañ séddee sëñ Masamba sëñ Masamba day ànd ak ay lu mat ñetti ponkal day yor yar yu baax a baax a baax it waaw ñii la sëñ bi doolaan nga am lu taw taw taw taw loo taw kenn du jóg fa nga nekk mukk bokkul ak léegi si ndax am na genn gàmm goo xam ne gii ci waxtu settun bar la sëñam setu mi nga xam ne moo jiite gàmm gi moom dañ koy tiimale parasol bu dee taw rek waaye du fa jóg mukk ba saman set ñi nga xam ne teel bi ngeen tax a dikk it fa ñu boof rek la ñuy boof ah ba nga xayaat tawi bar na ñu am ñu bari solo ci ci ci ci jumaa ji loolee nag jumaa ji fatt ba nga xam ne nit ñi gaañ xaw nañoo gaañ am ci ndaw soo xam ne sax doo am ci la dee te yow waaye ndaw soo see ku gëm yàlla la ñëpp tagg nañ ko ñu bari tagg nañ ko rek ndax bi nga xamee dikk na sëñ bi sëñ bi dafa daal di yónnee Malick Ndiaye ne ko na nga dem ci jumaa je yéeli ne képp koo ci xam ne kii taw ba mu ñu daw de képp ko ci taw de sa bàkkaar ba nga weesu jeex na tas loolee tax nit ñëpp daal di génn ñu day tëj jumaa ja ñëpp nekk ci taw bi ndaw soosee doom dee ci gannaaw mu dikk wàcce ci biti nag di nampal fekk rek doom ji dee mu daal koy bootaat noonee ci gannaaw ci dem ci jàng yi ba samaan set ci dikka dikkee nag mu soog ko ko wan mu ne ko boo seet waxuma la ko ci guddi dana bañ say jàng yàqu nga di sonn moo taxal kenn ko bëggee naan panisit mu faatu ndax nit ñi dañ ko bës ci kële bi ba da da ci la faatu waaw soo see keneen bu baree beer gërëm nañ ko na ko jëkkëram gërëmee rek ngir ngir tëb yàllaam ngi rek ak nopp nit ñoo Sëriñ Tuubaa ñii la daan gàmmoo ci njëriñ taw du tax kenn jóge fa nga nekk mu ko ci àdduna waaye boo murit dafa am dañoo mën nañu sàkku ñu ne buñ dee jàng ba taw ba ni wëlëb rek ñëpp ñibbi ñu tas jàng bi waaye nag nekkoon ci jamono sëñ Touba moo tax jàng yi amul solo te sëñ Touba ba mu ne góor xalu déef la wu yënd jigéen sayu boobu la iblis mooy seen ngelaw ku dajale góor ak jigéen fenn sëñ Touba ne boo ne yàlla nga fal nga fen nga de araam na faw ndax wax na keroog ne laa yaqumu zaa illa nisaa yu rijaali yaqsu bi aydihunna um min min xottamil jaanam ne sama gannaaw góor ak yéen daañu tàppante joxante loxo nuyoo matum sawar dong lañu doon daañu daañu ko joxante sawar lii sëñ Tuubaa wax na ko ku ko neen dem sawar kon nag loolu ma tawattu la ay jàngu daal dajee góor ak jigéen daal loolu gisuma ca dara foofu sëñ Tuubaa dikk lépp jàng yoo xam ne góor ak jigéen daañu nañu fa daal sëñ Tuubaa du ko dikk ku fa ñaan sëñ Tuubaa day bañ waaw léegi jigéen ñi ku ci sàkkoo déglu ay jàngam nag nga war a mën def sori leen sori góor yi.
waaw ndax li ñu tax jumaa njëriñ gii jigéen ñi dañoo dikk fi suñu saa jenn boobu mooy jëwriñu tabax bi nekk noonu day dañoo bëgg na barkeelu ci liggéey bi suñu saa ni leen loolu de dafa aajo tàggu sëriñ bi kon ba xam dana si joxe ndigalam déet ba mu demee ba wax ko sëriñ bi ne ko jigéen day dañoo dikkan ndax ne saññoo barkeelu ci yenu bi mu ne waaw waaye nag na ngeen ko defee nii ma ko waxee soo demee saxaar googu déen di doy ci mburgal mi doon da këram sëñ ma Samba Diop fa la góor ñuy jële kon nag saxaar gi bu dikkatee bu ñu wàccee lii lii nañ ko dem ba ci sa sa lonkil ñu wàcc ko daw ñu sa daw ñu bokk yoon bu jigéen ñu wàccee góor ñi sëñ sa soog a wax ñu roññi la jigéen ñi yóbboon feetu daal di kër andi ko cee ci jumaa fi jumaa ji waaye sëñ Tuubaa mosu nangu mukk ñu weesaloo góor ak jigéen daje fenn fenn fenn fenn aram na amul fenn man da ay jàng sama kopp du ci dem du ma ci dem mukk kin ci mitim nee na fenn naan fi ak jàng du fi am mukk fenn